asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar ci seyxuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram di ñaanal borom ëtt bi ñu toog di Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Abdoul Xadir Mbakke yal na yàlla may ko fanu gudd ànd ak wér-gu-yaram dëppale man-manam ak yéeney mag ñi ba mu àggale naal yi nga xam ne mag ñi yaakaar nañ ko ci moom ci barki Cheikhuna Ahmadul Khadim ñu toog ci bis boo xam ne nag moom la ñuy waajal te bis bi lépp di Serigne Touba Khadim Rasoul kenn ci ak njabootam bokk ci seen maam njëkk a laxasaayu ànd ak Serigne Touba Khadim Rasoul doon ko liggéeyal ci alquran di Sidi Muxtaar Sill di kenn ci njabootu Cheikh Mahamadul Basir muy amal bis bu mag di ko amale ca Wakaam mu war a doon juróom-benn fan ci weeru janvier muy bis boo xam ne sant Serigne Touba Khadim Rasoul ak delloo ko njukkal rek la. bis boobu nag lañuy waajal muy def at mu jot mu dara jaale ko ci kenn ci mag ñi toppoon Serigne Touba ren jii mu dara jaale ko Serigne Naar Jenn moom Serigne Baara Jenn moom Cheikh Issa Jenn kaddu yooyu nga xam ne nag moom la Cheikh Mouhamadul Basir di yëkkati ngir bis boobu nga xam ne. lépp sëriñ tubaa xaadimu rasul lay doon te dañ koy yendoo bajant bi so moom la ñuy taatan déglu cheikh mahamadul basir moom cheikh abdul xaadir di tàmbale nuyoo bi ak siyaada bi ci ak cheikh mahamadul muntaxa mi fi jëmi sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mboolem naa li nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ tubaa suñ borom mooy ko kàttan ak wér mottali ko ndax moom yitteem liggéey sëriñ tubaa lu ëpp ñaar ay bis wax na wax ju daw yaram ne ma man yàlla defal na ma tawfeex bëgguma dara bëgguma kër bëgguma oto bëgguma alal bëgguma dara Sëriñ Tuubaa rek laa bëgg moom rek laa mënta ñàkk te am naa ci woon tawfeex kon nag kilifa gu mel ne ku ko am war nga koy fàttaliku bu baax ndax eh, Sëriñ Tuubaa daa wax ne ndamul luut mooy am ma waaye ndamul amit mooy fexe ba téye ko mu bañ laa rëcc kon nag li ma daa faral di wax rek di ko fàttali mooy li yées yi àdduna mooy ku ñëpp ñetti ñëw boppam kon ku am kilifa kilifa gu ma ne Cheikh Mouhamadou Mountakha doy na la sëkk ak yëkkati ko doy na la sëkk ndam doy na la sëkk daraja kon nañ ko ñaan mu yàgg fi tànd biir di nuyu bokk taalibe bi yëpp ak bokk lislaam ji nga xam ne lépp ñoo ko bokk ci nam gën a rafet na ko alxuraan santaane di fàttaliwaat rek ay kàddu ci bis bi nga xam ne sëñ Sidi Maxtaar Sylla mi moo koy def te daaw ma fàttaleel ko ko nii ni defaat ko woon ne kon allah li fi ma di ko mën rek fas naa di ko ànd yow loola itam la tax rek xam ngeen ne Serigne Touba nekk na ci njaarim ñaari Moussa ne fa mu mag ak Moussa mu ndaw. Sëñ Tuubaa ne woo leen ma Moussa bu mag ñu andi ma mag ci at Sëñ Tuubaa ne duma ma ndax mii moo mokkal alxuraan kon mooy Moussa mag kon le sëñ Ibrahima naa mbiru Sëñ Tuubaa toppi at yitte pëseef moo ci am solo mii nag yàlla def na bi ñu yàlla Sëñ Tuubaa boole ndax xam ngeen lim doon ci biir yoon wi ni ko Sëñ Fallou waxee léegi maam ya bokk ci ñu njëkk a lax sax ànd ak Sëñ Tuubaa doon ko liggéeyal nag ci li ko gën a itteel muy alxuraan ci la juddu màgg ci yaru ci ñu tàggat ko ci waaye mu jub jub xocc tegi ci yoon te loolu mooy li gën a ëpp solo war a nekk misaalit ci ñi tollool ak ñi ko féete suuf ñëpp ñoo xam ne lu baax moom képp ku jugg di ko wuti waroo xool fa nga toll ndax dañuy wax ne ku toll ci sa digg adduna adduna yow la gën a soxla seetaan yow la gën a sol waaye suñu borom yow la gën a sol ndax bu dee jaamu yàlla yaay gën a am kàttan moom koo def kon nag ku ne moom mii bu ko suñu borom defee tawfeex bi mu jàng la mu war a jàng bokk fa mu war a bokk waaye la sëriñ Touba waxoon kenn ci ay mbokkam sax la ko waxoon ne ko aka aka aka aka rafet te baax doomi soxna bind ab kaamil bu rafet te xoolu ko buñ daa tudde bopp bopp kaamil bi nga xam da bind te doo ko ko xool kon ñun ñëpp ci loolu lañ jaar. bind kaamil ba mu jaar ko te doo ko xool. mu ne ko ak ah, ndaw lu ci doomu soxna. waaye nag li solo nag mooy fexe ba lay xew ci péew yàlla ba nga di ko xam loolu moom bi dañ koy soññu ndax waa góor nit dañuy wax ne li fi àggagut rek. kenn waru koo sant waaye dis ko war a ñaax mm. kon cant gi ak ñaax li mm. kon nag yoon wii mu tege mu yoonu njub ak yoonu positif ak yoonu ak yoonu jëf ci Sëñ Tuubaa ñu ngi ko ci ñaanal lu baax ndax àdduna képp ku jug jëm ci lu baax rek ni ki nga xam ne nag imaamul Xasaali waxe woon rek mahma azuma al matlub wa sharaf saxu ba matlakuhu wa taala tariquhu wa kasura aqabaatuhu kemtalaay li nga bëgg nam kawee rek pakk-pakk yi ak jafe-jafe noonu lay demee kon nag li kullin ila chawil ala ula xarakatu walakin asisun li rijaali subur ñëpp rek jug àgg ca yu kawee lañ bëgg waaye li jafe nag mooy sax ca kon nag ñu ngi koy ñaanal moom yoon wii mu sóobu te ànd ceeg ndaw yu bari ak ñoo xam ak sax ngir jub gi yal na ko ci yàlla gën a dimbali. yal na ko Sëriñ Tuubaa gën ba yoon wi mu sóobu. ndax bu melu toon na mu war a mel kat nu mu mën a mën a demee man kon kàddu yi du ko sañ yëkkati. ndax sëñ bi daal dinaa wax ne ku yoon ndénkaanu jàmbur. du fa neex nga yóbbu ko kon lii ndax dama yor kàddu jàmbur kon bu ma waxee ci bisam rek la ma ci jublu mooy soññ taalibe yi. Mm-hmm. ñu muy ab royukaay nag ñëpp ko war roy. Mm-hmm. ndax. laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon lu baax moom ñu ko dañu ko royloo kon moom itam ñu ngi koy ñaax di soññ bokk taalib yi dëkk Wakaam ak yi dëkk Ndakaaru ak yi ci biir réew yëpp itam luñ ci daa taxawee rek ñu gën ko yokk ndax lépp luñ koy defee rek bu kanam rek lay jëm li nga xamee dëggu gi rek mooy jëm ko ci kanam ak yomb ko ndax moom ñun doonuñ ci daal la sëñ bi daal daa wax nan liggéey Sëñ Tuubaa yomb na ndax day féetewoo coono ba bàyyi la bàyyi la sat kon jëf yëpp dama ko wax waaye dama ko maa ngi koy fàttali tey jii ci bëccëg leen joxe addiya yëpp jërta na ndax ku ci ne bu buñ génnoon loola la la de Tuubaa doo ko mën Sëñ daa waxoon ne ma Sëñ Tuubaa dafa daa rëy ba mu ëpp lu ma koy sant mu lu may yëkkati nag lu mu rëy rëy ba bëgg ko sant mu xool ko lépp di jëfam may naandoo dàkk ko ci bëggam kon lii ngeen def mooy dàkk dàkk si dàkk Sëñ Tuubaa ci bëggam daa kuréel xasida yi dafay yëkkati di li mu jëysun te xam ngeen jëysun Sëñ Tuubaa yoonam yëpp moom lay jëfandikoo kon loolu mbootum yoon bi la kon dañ koy gën a sellal te ci gën a amul teewlu ndax wa isa xuri alquran fastamiu lahu wa ansitu xasida yi ci biir Alxuraan la ko Sëñ Tuubaa tibbee kon góor rek sant Sëriñ Tuubaa moom comme ni mu def ni ngeen def sàkkal ko bis la waaye guddi ak bëccëg daa ko jàng xasida Sëriñ Tuubaa gis ni muy sant yàlla guddi digg bëccëg waxtu lu mu doon rek yàlla lañ sant kon ñu tam nag lu ñu am ci suñ borom rek ci Sëriñ ko amee kon suñu cant gépp dañ ko jëmale ci mu àggalee ñu ko xam ne sant ko nag mënisu ko. li suñ borom di wax ne dëgg-dëgg sant ma kenn mënu ko def ndax wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha boo boobu a sant yàlla doo xam noo koy sant ndax nooy gi ngay noyyi ba ko sant sax yàlla la ko defal xel mi ngay am ba ko def yàlla la ko defa xalaat bi ngay am ba di ko yàlla ko defal kon boo ci génnee la suñ borom jox dara du ci def moo tax am na ak gàmm gu sa am am ku togg teraanga yu bari bari indi ko Sëñ Tuubaa ñu tasaare ko sëriñ bi ne ko loo ci jubloon mu ko xam naa xanaa jéem laa delloo njukkal mu ko mënu leen ko ndax la man ba def ko maa la ko jox kon mënu leen maa sant daana xam nga luy cant gi mooy ngeen yëg na maa leen ko defal kon nag loolu liñ ko mënal mooy liñ ko liñ mënal Sëriñ Tuubaa mooy di ko fàttaliku di ko teewlu guddeeg bëccëg di ko jéem a delloo njukkal ndax moom yàlla noppi na ci mbiram Sëriñ Tuubaa yàlla yëkkati na képp mootu ko yëkkati képp ku ko jéem a yëkkati nag yàlla si ci yëkkati képp ku bëgg a suufeel mbir mi tam yàlla suñu moom moo a suufeel loolu moom dama koy wax rek ne suñu maari basin si daana ko wax nee na nee na ko jàpp ne eh, mbaar mi xe saw xeru jënd ko téye ñaay dindi ko ba xam ndax suñu tubaab moom lépp moo kon nag nañ gën a góorgóorlu gën a yokk suñu yitte gën a suñ yàq suñ positif te gën a sellal suñ digg suñ Tuubaa te xam ne suñ Tuubaa kenn mënu ko ndax sëñ bi daal daa naan suñ Tuubaa du fàccali saako suñ moom foo ko toll rek fan lay toll fan lañ góorgóorlu kon ñu ngi ci ñëpp di leen ci ñaan itam yàlla suñ moom gàttandu leen ci defal leen ci tawfiix ngeen ko daa sellale ba dara àdduna dugg ci ngeen gën a wéyal loola ndax lu baax kat li muy baax baax saa su lu baax jugee rek seetaan dana làng ci wet gi jëm ko yàq kon nag yaay am sag wattandiku ak sag waggar ak sag bàyyi xel sëñ bi di ko teewlu boo ko defee rek xam ne Sëñ noppi na ci lépp xam ne bis itam Sëñ Tuubaa defar bis yëpp Sëñ Tuubaa defar na moo tax sëñ Ibra da daa wax bu ma saa jub si nit ñi di jàmbat jàmbat jamono ju naqari mënoo koy defar bisi jàmbur sa bis ma tooxale waaye suñ bis yëpp Sëñ Tuubaa ko defar kon nag ku ci dàkk bis di ko sant Sëriñ Tuubaa wóoroo caa defal dara wóoroo caa wutu des bu ca bëgg leneen bu ci bëgg sak bu ci bëgg daraja bu ci bëgg yëkkati lépp delloo ko Sëriñ Tuubaa loo ko yéene wala nga jëme ko ci mooy del si waat boo ko xoolee si ñi ko njëkk a topp koo ci joxe misaal rek Sëriñ Saaliw daan na wax ne Sëriñ Tuubaa neewoon na ndax mooskat Ibra Faal mii da jiitoo lañ ci man dara lu a ak bëgg bëgg gi mu bëgg Sëñ Tuubaa moo tax fu ñu tuddee Sëñ Tuubaa tudd ko moo loo ko yéene loolaay deesaat ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala